bu dee gan nga ci suñu kër gi di Faaida TV bala ngay seetaan vidéo bi ñu ngi sàkku ci yow nga abonné te bul fàttee bés ci cloche de notification bi ngir lépp luñ dugal ci kër gi nga mën cee jot bul fàttee zem tey partager suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kese la leen di jural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 wa in kaana yatadaalu duuna xaqi jalaalihi xamdul xaamidin wa nusalli wa nusallimu ala asrafi alxalq sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ixwata almustamiin ixwata almustamiaat nuxayikum bi taxiyatin taxiyatin muattaratin bilmiski walyasamin alaa wa hiya assalaamu aleykum taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi seyduna muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan yàlla mu boole ñoo jégal Euh, ñu teewaat ci barab bu mag bu tedd bii ngir jotaay yi nga xam ni moom lañuy amal ci biir weeru koor bi ci alxamis bu ci ne mu nekk mu xaadaraat yoo xam ni ci organisation boo xam ni daayira ansaaru diin al islaami bi ñu xam ci école al azhar bi ñoom ñoo ko jiite ànd ceeg ndigal mudir Abdul Xaadar Mbay ak mboolem jàngalekat yi nekk ci école bi yépp euh, tey nag di suñu ñaareelu muxaadara incha allah ñu fas yéene cee ànd ak euh, suñu gan gu mag gu tedd gi nga xam ni macha allah. ñu bari xàmmee nañu ko xam naa dinañ ñëw ci moom bala muy commencer rek su ko defee comme niñ ko baaxoo di defee rek bala ñuy commencer waxtaan bi ñu jox euh, soxna Awa soxna Awa fay mu jàngal ñu tuuti ci alquran rek incha allah suñu paree ñu wéyal programme bi soxna Awa bismillah bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسحر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى شكرا لك سخنا أو فايتي njàngum alquran bu sell boobu yal na yàlla wéral baat bi te yokk xam-xam bi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci noonu lañuy ñuy continuer euh, di dalal suñu gan yi di dalal mboolem jàngalekat yi fi teew yëpp ak élèves yi ak euh, parents de élèves yi nga xam ni teew nañ fi ku ci mel ni Serigne Daouda Ñing ak suñu mbokkum daara yi nga xam ni moom itam kuñu ñu xàmmee la ci wàllu diine di sëriñ euh, Mouhamed moom itam ñu ngi koy ziar di ko wax dalal ak jàmm marhaban bika di ziar bu baax tamit suñu mbokk ustaas mi nga xam ne moom itam xamee nañ ko ci liggéeyu daara ji muy euh, ustaas Cheikh Sène ak ustaas Moussa Sène ñu ngi dalal ñëpp euh, ñu fa yéene nag tey ànd ak suñu gan gu mag gu tedd gi nga xam ni moom la ñuy wooyee alxaaji Mouhamadul Amin Ndiaye nga xam ni ñëpp xàmmee nañ ko ci jotaayu diine ak lislaam mu nekk koo xam ni kuy faral di bari lu muy génn ci tele yi ak di wax ci rajo yi ci wàllu diine ak lislaam nga xam ni soo ko séenee rek ngay xam ni loolu rek moom mooy yitteem. ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla yàggal ko ci suñu kanam xam-xamam gën di yokk muy gën di jariñ ndaw ñi incha allah kooku mooy oustaz Mouhamadul Amin Ndiaye moo ñu fa yéene defal suñu muxaadara tey bi nga xam ni mawdon bi ñu ngi ko bëgg a dippee tey alquranul karim wa shifa min kulli daa nga xam ni incha allah lépp lu ci aju rek ci alquran ak njariñ li mu mën a def ci société bi yépp dina ci ñëw bu baax a baax incha allah su ko defee kon dañuy bañ guddal rek bàyyi ko mu dugg si ci thème bi incha allah kon oustaz ñi nga lay wax tafaddal mashkura bismillah li gayri rida wa min sududiya amma sunna aw furida bismillahi allazi بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلة alhamdulilahi zil gufraani wal karami summa salaamaani addal xalqi kullihimi ala allazi saada fi larbaai wal ajami muhammadin xayri xalqillahi albihimi man nartaji awnahu fi lhawli wanniqami waltukammil aqdi wa ilmi wa sacyi warfaci lyowma kullaha ya mucini saddit lisaani nawwir janaani soffi amaani wasid baraayi bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci nuyóob lislaam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di am mbégte lool ci dajëb xam-xam bi nga xam ne institut al azhar faron ngunjaan ñoom ñoo koy taxawal ci weeru koor ànd ceeg daayira ansaaru diin al islaami muy élèves yi ci daara ji rek di ko defal nag seen bokk yépp seen bokk ansaaru diin yi ci Sénégal yépp muy lu am am solo xam naa pour baña a guddal ndax bu ngeen gisee ma teel a tàmbali nii te xam naa sax guddee na ci man mooy li ñuy waxtaane dafa xaw a rëy lool alquranul karim huwa shifa min kulli xajut ci temps bi ñuy waxtaan moo tax wàllu nuyoo bi dañ koy tënk rek bu dee lu jëm ci école bi buñ ko tegee ci loxol sëñ Abdul Xaadir Mbay mi directeur école bi dana yóbbaale mboolem jàngalekat yi nga xam ni ñoo ne ci bu dee lu jëm ci parents d'élèves yi suñ ko tegee ci loxol suñu bàyyi eh, Sëriñ Daawuda Ñing dana yóbbaale képp koo xam ne am nga doom ci école bi waaye lu jëm ci eh, li nga xam ne mooy njiitu mantaqa bi suñu eh, nuyoo eh, oustaz Moussa seen bi nga xam ni moo fi teewal waxtu wu nekk oustaz Sow dafay mel ni dina mën a yóbbaale mbooleem asaatisa yi nga xam ñoom ci mintaxa bi di fi yëngu waaye du nag ñu beral nuyoo oustaz Cheikh Sène mi nga xam ni moom it dafa wëlbatikuwaat di jàpp ci liggéey bi ci am positif su ko defee kon noonu ñu ko waxee ñu daal di def directement ci suñu waxtaan muy alquranul karim huwa shifa min kulli daa alquran mooy saafara bépp jàngoro xanaa ay lay lañuy ñuy jéem indi waaye bu dee ñun en tant ay jullit moom sañuñoo weddi loolu ndax buñ ko weddee rek daf ñuy génne ci diine bu ñu weddee ni alquran wa shifa min kulli daa loolu daf ñuy génne ci diine ndax afa yuminuuna bi baadi alkitaabi afa tuminuuna bi baadi alkitaabi wa takfuruuna bi baad ndax la yàlla xase woon juif yi ndax da ngeen di bëgg a gëm lenn ci téere bi weddi leen déedéet alxuraan moom da gëmandoo lépp li mu informé lenn loo ci weddi lu mu ndaw ndaw dafa lay dugal ci eh, daayiratul kufr wal iyaazu billah kon ay lay lañuy ñuy jéem a indi ci loolu lëkkale kook science ndax li tax mooy science day loo xam ni jumtuwaay la yu yàlla jël teg ko ci ay loxoy ñoo xam ne nii dañ dul gëm lu dul lu ñu gis ma waxaat ko mooy ñi nga xam ni gëmuñu xay defe naa daaw rek te woon naa fi aaya jooju ñun gëm nañu xay bokk nañ ci yàlla wax allazina yuminuuna bil xay bi ñun dañoo gëm kumpa alquran lu ñu informé même bu ci indiwul ay justification gëm nañu ko ndax loolu mooy baaxu jullit te moom la ko yàlla tagge gëm kumpa ñu informé la malaaka nga gëm aljana ak safara nga gëm boo dee da ngay dekk nga gëm voilà mais ñi nga xam ni nag ñoom dañuy laaj dañuy xaar ay confirmation door a gëm ñooñu la yàlla défier woon depuis mille yu teg quatre cent ans ni dinaa leen jox ay outils dinaa leen jox ay moyen yu leen won ni alquran mooy dëgg sa nurihim ayatina may fàttali ne xitaab bi toujours jëmut ci ñun jullit ñi bu ngeen delloo ci alxuraan yàlla mi ngi doon wax ak ñi gëmut lay wax yonent bi ni ko bàyyi leen dinaa leen won sama siiñ yi sa nurihim ayatina fil afaq dinaa leen ko won ci horizon yi gis ngeen tey ni ñu jekkoo horizon yi te horizon mooy lu amut fu mu yem mooy lu amut fu mu yem rek boo jëloon avion wax wala sax lu gën a mën a kawe avion ci jaww ji muy satellite wala fiise dem fa gën a sori ci jaww ji la ngay xoolaat ca sa kaw mu féete la kaw te amul fu mu yem la day dugg ci afaq amul fu mu yem xanaa kay en la bi nga xam ni kenn na fa dem muy yonent bi sallallahu alayhi kon yàlla ñoom la wax ni danaa leen woon signe yooyu lan mooy illay woon leen ko wa fi ak seen jëmmi bopp te lenn ci li ñuy waxtaane tey day dugg wa luy àlla ji lim ko taalile mooy xatta te bay annahu lxaq ba ñu xam ba ñu xam ne alxuraan mooy dëgg donc dinaa leen jox ay moyen jumtukaay ay gëstukaay ñu gëstu ci horizon yi gëstu ci jëmmi doomu aadama ba xam ne alxuraan limu mu woon lépp dëgg la loolu tax ñuy bëgg science di ñu gunge muy loo xam tam ab jullit daa war a sonne ci gëstu ko ndax yàlla dàq ko ki leen ko won kenn la mooy ki la bind bind univers te lépp loo xam ni science daf ko trouvé teg ci loxo su fekkee loolu réalité scientifique la am nañ ci certitude mënta safaanoog alxuraan jamais forcément day dëppoog alxuraan parce que la ñu ki wàcc alxuraan rek ko bind ñaari yàlla nekkut foofu nekkul ndaam yàlla boo xam ni li scientifique yi di trouver moo bindu bi loolu am yàlla boo xam moo bind alxuraan déedéet kenn ki la su ko defee looloo tax ñuy bëgg di ànd ak moom pour li ñuy wax gën a leer waaye mu gën a dalal suñu xel ndax tam am certitude wàññiwul dara yonent bu ñu ëpp fuuf maqaama ëpp imaan doon na wut certitude ci boroom mu yonent yàlla Ibrahim wax na suñ borom rab rabbi arini kayfa tuxyil mawta yow suñ borom won ma nan ngay dekkale ku dee kon moom li ngëmam doon sori sori des fois mu am was-was giy dal nit la ko ci suñ borom tegal mooy awalam tu'min ndax gëmoo afalam tu'min donc kon li ma bëgg a wax mooy jullit bi muy def ay recherche scientifique yoo xam ne da cay dalale ak xelam loolu ak jaamu yàlla la te li ñu xam lépp yaalamuuna zahiratan min alxayaati dunia wa hum an il axirati hum gaafiluun jàngeen ci balaaxa almadxu yuqsadu bihi damm waaw tagg woo xam ni aw xas lañ ca jublu suñ borom foofu daf leen a tagg ñoom yéefari waaye aw xas la ndax la ko daaneel dañuy am xam-xamu fee scientifique yi fait scientifique yi muy réalité scientifique yi ci àdduna zahiratu min alxayatu dunia dañ ci am xam-xam bu doy mais seen cat mooy waxum anil axiratu mu gafilun dañoo sàggane alaaxira kon xam-xam yàlla tagg na leen ci xam-xam xam-xam boo xam li ko yàq rek mooy dañ cee liggéeyalu lu leen mën a jariñ ëllëg alquranul karim huwa shifa min kulli daa alquran mooy saafara bépp jàngoro moom si boppam sax mooy saafara bépp jàng maanaam ngeen dégg wax ju waxuñu alxuraan saafara la ci bépp jàngoro déedéet alxuraan ci boppam mooy saafara ci bépp jàngoro moom ci boppam mooy saafara te dinañ ci ñëw xatta ba ci médicament yi jëfandikoo nan la alxuraan nekkee ni mooy saafara bépp jàngoro moom alxuraan nga gëm ko nga ñànk koo gëm a ci yam donc ci waxtaan bi danañ broche ci ay. Euh, point yu gàtt mooy leeral taariful quranul karim taarif bu gàtt rek ak lan mooy ashifa al farq bayna shifa wa dawa lan moo tax shifa te dawa ñu ngi ci alquran kalimatu shifa fi alquran maanaam li yàlla utiliser shifa muy saafara ci alquranul karim kayfa kaana alquranul karim shifa min kulli te dëgg dëgg waxtaan wi loolu la nan la alquran nekkee di saafara bépp jàngoro loolu mooy question ndax gëm nañ ko waaye naka naka la ko nekke su ko defee dañ koy séddale ñaari xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi xam ngeen ni xam ngeen ni li ñuy wax faju muy saafaraw ñaari pàcc la ko rawatina nag bi médecine moderne gënee développé ñaari xaaj xaaj bi ci njëkk moom lañuy ñuy tuddee prévention muy alwiqaaya boroom xam-xam yi dañuy wax ni alwiqaayatu xayrun min al ilaaj maanaam fagaru moo gën faju fagaru parti la ci faju ab parti la ci faju ndax mooy fagaru pour bañ a feebar pour bañ a feebar léegi faju dóor a ñëw faju mooy a ah, feebar dikk na nag nga war a faju pour delluwaat ca na nga meloon kon fagaru borom xam-xam yi dañ koo boole waale ci faju dañ ko boole waale ci faju moo tax al euh, dañuy séddale waxtaan wi ñaari parti muy ndax alquran bàyyi na xel parti fagaru donc parti fagaru parti bu njëkk bi parti fagaru lay jëm ci lay jëm parti ñaareel bi ñëw ci parti faju parti faju donc alqismul awal foofu la jëm su ko defee ci euh, wàllu googu nag li ñuy wax fagaru boroom xam-xam yi li ci njëkk mooy dañuy teg benn régime alimentaire ak wattandiku li nga xam ni mooy jëflante bu violent mooy jëflante bu agressif bu metti ndax kooku daa mën a indil nit ki feebar nga wattandi ko wattandiku ko ci xeetu fagaru la bokk naka noonu pour fagaru indi nañ li nga xam mooy an nazaafa muy set wàllu set di dégg bis bu ne set médecins yi di toog ci télé yi set set set nañuy set nañuy raxasu nangam rawatina jamonoy épidémie jamono yoo xam ni épidémie dafa am muy feebar bu gaaw a tas niñ ci sonnee ci nit ñi di di fagaru te ñun bu dee suñu diine eh, bi muy gën a utiliser mooy ab tahaara ab moo gën a xóotati sax an nazaafa dégg waaye ci nazaafa la waaye moo gën a matale naka noonu ar riyaada al badaniya wal aqliya bokk na ci xeeti prévention yi muy fagaru mooy sport da ngeen dégg ñu koy soññe maanaam wàllu tàggat yaram tàggat yaram ak tàggat xel ndax tàggat am xel bokk na ci liy wéral yaram bokk na ci liy wéral yaram da ngeen dégg ñu wax al aqlu salim fi jismi salim donc xel mu wér moom ci yaram mu wér rekk la mën a nekk naka noonu yaram mu wér xel mi wér rekk bu la neexee nga wëlbatiku suñu ñëwee ci wàll googu nag muy ñett yooyu nga xam moom lañ tegal prévention muy wàllu fagaru dañuy gis ni alquran bàyyiwu ci benn teddu da caa wax muy bu njëkk bi muy teg régime alimentaire bu baax maanaam li ngay dunde nga koy saytu te di ko xool bu baax a baax li ngay dunde nga di ko saytu te di ko xool boole caak wattandiku jëflante boo xam ne day indi violence maanaam day indi ay stress day indi ay jaaxle parce que stress day indi feebar bokk na ci indi feebar mën nañoo tàmbalee ci biir loolu muy al ayat al wiqaiya al mutaalliqa bi nizaam al ghazai wal muamalat alla unfiya borom subhanahu wa taala ci suuratu talaaq ci pour bëgguñu fagaru bañ a def lu ñuy teg stress bañ a def luy indi jaaxle buy indi feebar moom dafa daldi tàmbali ci jigéen wax ni askinuhunna min haythu sakantum jigéen ñi ngeen takk ñuy seeni soxna su ngeen ko manee dëkkal leen fi ngeen dëkk fi ngeen dëkk pour sécurité gën a mat ndax sécurité dafa bokk ci prévention yi maanaam yi nit di fagaroo pour bañ a feebar sécurité environnementale sécurité alimentaire sécurité sociale moo tax mu bàyyiloo xel ku góor ki ni jigéen ñi ngeen takk dëkkal leen fi ngeen dëkk donc loolu mooy dëgg dëgg ndigal li bu dee ci Sénégal nag xëy na vie sociale bi ni mu fi demee day wuuteeg yeneen réew yi donc vie familiale lañu xam nga takk sa soxna mu ne ci kër famille mais soo ko manee jaamu yàlla gi dëgg-dëgg mooy fi nga dëkk sa soxna dëkk fi loolu alquran santaane min haythu sakantum min wujudikum ci seen am-am ci seen am-am ci seen financement wu bopp wala na te bu leen leen xatal bu leen leen lor loraange gis nga bu leen jëflanteeg ñoom jëflante bu violent maanaam comportement bu agressif bu mu dox seen digganteek soxna yooyu li na ngir bëgg leen a xatal dégg ale yi tudayiqu na pour bëgg leen a xatal léegi nga continuer mu daal indi sécurité alimentaire boobu may wax te mu bokk ci wàllu prévention wàllu waajal sa bopp bañ a feebar mu tàmbalee ko ca ba nga juddoogut gis nga lislaam fi mu tàmbalee wàllu fagaru foofa nit ki juddoo juddoogut mooy wa in kunna ulaati xamlin fa anfiqu alayhinna xatta yadaan xamlahunna aay yi may jàng dafay tegtale ni ki wax alquran yàlla kese la mën a doon parce que maa ngi koy jëfandikoo ci li ma soxla te bokkut ak wàllu tasriya gi muy faqih bi moom bu ñëwoon mën naa jaar feneen ci aaya yi may waxtaane ah maam ki nga xam ni day wax ci wàllu fiq na mu koy jëfandikoo mooy li ñuy wax alkitaabul jaamia mooy alquran ku ci nekk mën nga ci jël li nga soxla layale ci li ngay wax te du dàqonte keneen ka bu ñëwoon jël suñ boroom ni ñi nga xam ne ay woroomi ëmb lañu jigéen ñi ëmb fa anfiqu alayhinna na ngeen leen financé na ngeen leen financé et pourtant même bi mu amul financement bi yow la war lu tax mu ni ñi ëmb na ngeen leen financé c'est-à-dire nga yokk financement wu jigéen ji ëmb ni nga koy financé wërta bokk ak ba mu ëmbagut ndax lu tax dafa yor jeneen bakkan ci biiram mu laaj protection ci wàll gu nekk parce que moom daa toll ci état boo xam ni yaramam day tàng lu bari système immunitaire am day néew doole pour mën a attaquer feebar yi kon dafa laaj taxawu bu baax a baax pour mu bañ di feebar pour mu bañ di feebar donc alay fanfiqu alayhinna hatta yadaana hamlahunna te bu leen financement boobu ndare ñu wësine la ñu ëmb donc financement bi nga xam yaa ngi doon yokk dépense bi ci moom pour protéger ko pour mu fagaru ci ay feebar moom ak li mu ëmb bul ko arrêté li fekk wasinut nga jóge ci phase boobu dem ci phase u nàmpal bàyyiwut mu ni fayin ardaana lakum fa aatuhunna ujurahunna ba tey mi ngi ci prévention muy maanaam fagaru suñuy nàmpal ni doom parce que nàmpal soow xam ngeen bokk na ci liquide yi nga xam ni dañuy jël vitamine bu bari ci deretu doomu aadama mook man nii ñoo yam li ñuy jël ci vitamine li muy ndaw ndaw dafa mën a xëcc vitamine bu bari moo tax jigéen jiy nàmpal te amul toppatoo bu bu bu baax day gaaw a jeex alxuraan loolu lay bañ moo tax mu ne suñuy nàmpal ngeen taxawu leen dégg nga fa in ardana lakum suñ leen di nàmpalal fii lu sew a ngi fi mooy doom ji ndeke jigéen ji nàmpalul ko boppam moom yow la koy nàmpalal yow ku góor gi ndax damir ji ci ñu góor ñi la dellu suñ leen di nàmpalal seeni doom dégg nga faatuhunna na jox leen ak payoor fay leen doonte sa soxna la fay ko njëgu nàmpal njëgu nàmpal pour mu gën a mën a fagaru bañ a jeex bañ a feebar nàmpal bi bañ a changé dangay gis jigéen joo xam ne macha allah. taaru na mel na ni mu war a mel mais ca nàmpal doom ca lay mujj déformé woo mel neneen li alxuraan moo ci jiitu médecine fuf donc kon te lépp mi ngi dugg ci wàllu fagaru fa in ardana lakum fa aatuhunna ujurahunna wa atamiru baynakum bi maaruf ngeen réunion waxtaan leen seen diggante pour payoor boobu nu muy deme donc toog leen ngeen waxtaan yaag sa soxna nga waxtaan ak moom neexal ko ah amal nga ma doom kat yaa ma ko war a nàmpal léegi loo bëgg ma la koy jox ngir waxtaan alxuraan lii la santaan lépp rek pour dalal xelam psychologiquement waaye dalal yaram am pour mu bañ a maanaam nekk koo xam ne feebar daf koy dugg ci biir nàmpal boobu wa in taasartum alxuraan sax dem na nee na bu ngeen demee ba jubóowu leen ci njëgub nàmpal googu fa sa turdiu lahu uxra na ko jeneen jigéen nàmpal ngeen sunu jigéeni sénégalaises yi moom gàcca ngaalaama loolu moom gisuma ñoom dafa mel xëy na dañ leen koy nëbbu waaye sonaluñ ci seeni soxna yi seeni seeni borom kër waaye jigéen am na sañ-sañu ni boo ma fay du ko nàmpal te du ci am bàkkaar te doo ko ci tong parce que alquran la àq la bu ko alquran jox bu jafe-jafe amee ci ñàkk déggoo sax sun borom nee na na ko keneen nàmpal na ko jeneen jigéen nàmpal ngeen fay ko donc kon yooyu li ma bëgg a wax mooy wàllu prévention bi wàllu maanaam fagaru alquran gis ngeen ni mu ci indi ci côté boobu naka noonu ba ci biir prévention xale bi nga xam ni dafa juddu sun boroom mu ngi bàyyi xel ñu fagaru ak wér-gi-yaramam bala koy feebar di yépp mooy wal waalidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni dégg woy wayjur yu jigéen ñi nañu nàmpal seeni doom ñaari at yu mat sëkk ñaari at yu mat sëkk dégg nga xawlay ni kaamilay ni ñaari at yu mat yoo xam ne nii su fekkee mën nañ ko su fekkee mën nañ ko su fekkee dañoo am jafe-jafe li man araada mooy koo xam ni dafa bëgg mottali ab nàmpam mais li ma bëgg a wax foofu mooy nàmpal at bu mat boobu dafay dugg ci wàllu prévention ndax xale soo ko nàmpalee nàmpal bu mat sëkk rawatina ñaari at yu alquran wax yoo xam ni jëlu ci benn yoon biberon wala lu néew la ko ci jël lépp ci weenu yaayam la jël kooku xale bi maanaam mucc na ci feebar yu baree bari te loolu lu scientifique la fim ne médecine saxal na ni soowum yaay ci doom dara mënu ko remplacer dara mën koo remplacer amul benn soow bu ko mën a remplacer du soowum nag du soowum xar du soow boo mën a jël ba jox ko ko ñu naan la daa am vitamine ak dégg nga nangam lang nangam soow moom dara yemul ni moom. loolu nag ci ki nga xam dafa am intention matal am nàmpal alxuraan daf ko wutal frontière ni ko deux ans doy na sëkk dégg deux ans doy na sëkk. wa alal mawludi lahu rizquhunna wa na bil maaruf xoolal ba ba tey suñ borom mi ngi topp kiin jural doom ji ne moment boobu ñuy nàmpal xale bi kiin jural doom ji moo yor wërsëgu yaay ji lépp day dugg ci prévention muy wàllu fagaru pour feebar bañ a bañ a ñëw waaye bu ñu jógee ci wàllu googu ñu dem ci ba tey li nga xam ni mooy régime alimentaire résime alimentaire muy ndax li may wax génn ko kii daa mënagul a lekk moo tax ci mbirum nàmpal ak ëmb bi ni war a taxawoo yaay ji ko ëmb ak yooyu ak ni muy nàmpale waaye su demee ba lekk war a ñëw nag mu war a lekk léegi yaa ngi tàmbalee dugg à l'âge de dix ans vingt ans jëm kaw amul fum yow suñ borom tegal la régime alimentaire boo xam ne nii dañ ca war a sukkandiku kon li ñuy wax régime alimentaire alquran moo ci jiitu médecine moderne moo ci jiitu science ba dañuy gis sax ci alquran borom bi subhanahu wa taala tudde aw saar table manger table à manger table à manger maanaam barabub lekkukaay mi suuratul maida suuratul maida maida taabal la ci xeeti taabal yi waaye li ko wutaleeg yi la dégg nga mooy moom lekk ko tax a jóg maida taabal yoo xam ne pour lekk rek la borom bi tudde na ko saar pour jox gu mu jox yitte li ñuy wax régime alimentaire muy ba saytu saw lekkin ak xool li ngay lekk ak xool li ngay lekk ak fan nga koy lekkeek naka nga koy lekke boo demee ci suratul maida borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni xurrimat aleykumul maytatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام ذلكم فسق yàlla ni xaraamal naa ci yéen suñ borom ku baax la day fekk loo xam ne nii yow nga jëfandikoo ko daf lay lor mu teg ca ay daan ni la bu ko def mel ni wuy jur wi tere doomam dara jël aw yat xam na ni li mu koy tere daf koy lor xale bi bu xamoon ni lii ko wuy juram di tere muy courant bi bu ci duggee sa loxook yooyu noonu du jar aw yat wax dëgg yàlla moo koy bàyyil boppam mais ñàkk xam ñun xamuñu moo tax seen borom teg ci ay xaraam yoo xam boo ko defee mu di mu menacé la ak bàkkaar mu punir la ci bàkkaar ni la nàngam ak nàngam moom lay teg sa kaw sun boroom ni xaraamal nañ ci yéen li nga xam ne nii mooy midd midd muy loo xam ni da nga koo fekk mu dee te rendi woo ko dégg loolu dinañ ci ñëw côté scientifique bi lu tax wat damu deret deret dinañ ci ñëw walaxmul xinziir yàpp mbaam xuux dinañ ci ñëw mbaam xuux scientifique yi wax nañ ni day joxe lu mat trois cent maladies loolu dem leen ngeen gëstu ko ñetti téeméeri feebar ak lu teg yàpp mbaam xuux daf koy joxe ndekete te loolu ci ci jamono bii ay appareil yuy diagnostiqué feeñe ci lañ ko door a xam kenn xamu ko woon jamono yi alxuraan di wàcc te lii ñi ko saxal duñ ay jullit am na ci ñoo xam sax boo demee xamuñ ni ndax al alquran araamal na yàpp mbaam xuux te science saxal na ko bu fekkee midd la xam ngeen ni lépp lu dee yéen a ngi jàng système respiratoire muy aljihaz tanafusi bi nga xam ni moo yor responsable lu jël oxygène bi la wër di ko dugal pour fóot sa deret pour fóot sa deret fóot deret googu lu tax jàng ngeen science de la vie ni deret dafa bari microbe dafa tilim dafa salte dafa bon dafa nangam deret jooju su fekkente ni mbir dafa dee te rendiwuñu ko deret jigéen te yii ñuy wax ndeysaan alquran bi muy wàcc lu ko layal amutoon maam deret jooju su mbir deewee te génnut te génnut tas ci yàpp yaram bi nit mu jëfandikoo yàpp woowu feebar bu nekk ci deret bi yëpp yaa ngi koy consommé waale ci ñàkk xam moo tax alquran xaraamal deret ndax science saxal ni deret dafa tilim dafa bari microbe dafa salte dafa bari ay virus dafa bari dafa bari ay mbir yuy loraange dégg ay ay ay ay virus deret jooju li tax muy ñëw ci xol di fa taseeg oxygène oxygène bi di ko fóot mu defaat retour delluwaat ci yaram set set wicc mooy loolu mooy dafa tilim dafa salte te oxygène bi mën na koo fóot ba mu set mooy waral muy ñëw ci xol dégg nga jaar ci deux ventricules yi wala quatre ventricules yi muy deux gauche yi ak deux droite yi war a taseeg li nga xam ne mooy ngelaw li ci pomo yi mu centré ko xol mu fóot ko alquran xaraamal deret ni deret bu leen ko jëfandikoo jëfandikoo leen ndawal te bu leen jëfandikoo deret laxmal xinziir wax naa ko wa maa uhilla li gayrillaahi bihi kooka mbirum gaybu la yàlla xam science xamagul maanaam loo xam ni dañ koo rendi ci lu dul turu yàlla science àggagul ci xam ko mais ñun ay jullit ki indi lu science layal bu ci dugalee lu science layalagul dañu xam ne science a tëlee moo tëlee rek moo àggagul fi mu war a àgg lépp lu ñu rendi te rendi lu ñu ko yàlla maanaam lu ñu rendil ay xamb wala ay tuur wala maanaam ñu rendil ko ay xërëm et cetera tudduñu ca turu yàlla xanaa tuddu ca turu jinne jinne ju santaane nañ ko rayal nangam wala tuur bee ko laaj wala yooyu bu leen ko lekk la ca nekk ci loraange yàlla moo xam wal mun xaniqatu lépp loo xam dafa xoju jur goo xam ni lañ ko yeewee woon moo ko xoj ba mu faatu bu leen ko lekk day dugg ci li ma njëkk a wax sànq parce que deret ji génnut dégg nga wal mawquusatu jur gu doon mbëkkanteeg moroomu dégg nga juróom ba faatu ca dégg nga wal mutaraddiyatu naka noonu jur goo xam ni dafa daanoo ci foo xam ni dafa dafa kawe dégg nga wan natihatu mooy buy mbëkkante dégg nga buy mbëkkante mawquza wal mawquzatu mooy bu ñu dóor ba mu dee boo xam ni dañoo jël a yat comme des fois chrétiens yi ni ñuy ni ñuy ni ñuy rayee mbaam foofu wala yooyu di ko jam di ko jam ba mu dee nga xam ni deret ji jaarut ci ci kaw génn yooyu noonu bu leen ko bu leen ko loolu yaakaar naa leer na leer na nañ li tax alxuraan tere nuñ ko bu ñu bàyyee xel li ma wax sànq mooy sariatul islaamiya lim santaane mooy su fekkee dañuy jëfandikoo dara ñu tëral ko rendi ko rendi googu ñu koy rendi ñàdd ko xam ngeen deret système circulatoire moo ko yor bokkut teg système respiratoire bi ma wax sànq système circulatoire mooy li yor circulation wu deret muy aljihazu dawri deret day def benn aller et retour aller et retour aller et retour boo xam ni kenn xamul nu mu toll li nit ki di nelaw mu xëm li fekk deewut aller et di dem ci xol ak a ñëw di dem ci xol di dem ak a ñëw aller boobu muy def boo ñàddee li ngay rendi rendi ko deret ji day génn ak force yóbbaale mbooleem tawat ju nekk ci deret ji day yóbbaale mbooleem feebar ju nekk ci deret ji nga mën a jëfandikoo ndawal gi mu set sell amul benn feebar gis nga alquran ni mu jiitoo science ci yu bare bare bari pour njëkkante ak waxtu wi bu ñu xoolee yaa ayyuha alladina amanu kulu min tayibaati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyahu taabudun kulu min tayyibaati naa ko moom lépp dugg na ci biir bépp xeetu saytu li ngay lekk dugg na ci biir borom bi subhaanahu wa taala ci suratul baqara mun yéen ñi gëm lekk leen li teey ci li ma leen wërsëgal li teey li teey te baax tayib tayib ci làngu arab ku ko xam xam ni dana ca dugg set setug li ngay lekk ñorug li ngay lekk dégg nga baaxug li ngay lekk dégg nga ak jawda bi am ci li ngay lekk muy qualité wu li ngay lekk lépp day dugg ci tayibaat yàlla day utiliser benn baat boo xam kalima jaamia lay doon boo xam li mu bëgg a wax lépp day dugg ci biir kulu min tayibaat ma razaqnaakum lekk leen terew ma leen lekk waaye bu ngeen di lekk lekk leen li teey ci li ma leen wër sëgal waskuru lillah ngeen sante ko yàlla in kuntum iyyaahu ta'budun ndeem ndeem yàlla ngeen di jaamu ndekete saytu sa lekk day dugg ci maanaam jaamu yàlla in kuntum iyyaahu ta'buduun saytu li ngay lekk ndax set na ndax ñor na ndax am na qualité ndax baax na et cetera saytu googu ndekete day dugg ci jaamu yàlla soo koy def yow jullit bi jaamoo ko yàlla bul bun la dugal ci yi ñuy wax ay affaire daab day tubaab tubaab loog day nang bul du alquran la suñ borom moo lay moo lay wax ni bu fekkee yàlla ngay jaamu li ngay lekk saytu ko saytul li ngay lekk bu baax a baax fal yanzuril insaanu ila taami baat boobu rek doy na sëkk nit na vérifier li muy lekk nit na vérifier ñamam fal yanzuril insaanu ila taami ay waay doomu aadama na vérifier waxoon naa fi daaw ni fal ak unzuru yi ci alxuraan xoolu bët bi taxul yàlla ñu muy waxal ñu ngi ni këwu am ay bët di gis kon lam ca jublu mooy recherche bu xóot mbooleem unsuru yi nekk ci alquran recherche la mooy gëstu gëstu bu xóot nit na xool li muy lekk anna sababna al maa sabba pour soññ ko pour mu xool li muy lekk yàlla di ko xoolal fi ma ko jaarale bu doon kuy sonn ku ci ku ci def coono la bu doon kuy sonn la ñam wi ma la jox ki la ko jox bu doon kuy sonn la ku sonn la waaye du sonn nag pour nga saytu ko yow li ci des te mu des ci yow yàlla jaarale na ko fii ba mu egsi ci say loxo ay waay li ci des nag te du dara xool ko mooy vérifier ñam bi ndax am na qualité ndax vitamine bi baax na ndax ñor na ndax ndax ndax set na et cetera fal yanzur insaan ila taami mu daal di indi moom lam def te defoo anna sababna al maa sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا Ah. wa xadaaiqa xulba wa fakihatan wa abban mataan lakum wa li an'aamikum moom loolu la def moom borom subhanahu wa nga door a jot ci ñam bi fii yàlla tudd na fi xeeti fir wi yépp ndax fawaaki bàyyiwul benn fir wi suñ borom nee na xeeti fir wi yépp maa leen ko tàggatal kon bu yegsee ci sa loxo xool ko vérifier ko bala nga koo bala nga koo lekk bu ñu ñëwee ci lu bees ci lu science trouvé médecine saxal ko mooy ñun ñëpp li ñu tàmm mooy bu ñuy wax li ñuy noos li ñu wax noos bi ñuy noos ci suñu cérémonie xew yi liñ baaxoo def mooy togg ndawal ba neex lekk ci ndawal gi ba géex daal di jël fir wi nag lekk science dema corrigé na loolu science nee na li gën li gën mooy jiital fir wi ci biir lu mat une heure de temps gën ngaa bari wala gën gaa néew minimum trente minutes nga jiital fir wi ba pare booy lekk ndawal nga door ko lekk lu tax parce que li nga xam ne mooy sa euh, butit yi nga xam ni ñoo nekk ci estomac bi muy mbàq gi butit ya nga xam ni ñoo fa nekk di xaar ñam ñëw pour ñu muucu ferñeent yi nekk ci ñam wi butit yooyu dañoo soxla suukaru fir wi parce que moo leen di activer moo leen di yokk cawarte pour ñu gaaw def seen liggéey léegi nag boo jiitalee fir wi te ku ne xam na ni ndawal muy yàpp dana jël trois heures de temps ci biir door a rees ci kibir trois heures de temps boo ko lekkee treize heures quatorze heures quinze heures mu door a rees am na ñoo xam sax ñi seen système digestif wérul danañ dem ba dégg nga guddi di géex rek di jàpp seen biir ak a wiñaaru su ko defee boo jiitalee firwi bi mu sawaral li nga xam ni mooy sa capillaires yi ak artères yi boo lekkee ndawal gi day gaaw def liggéeyam alxuraan fekkuñu ko lu dul ni day jiital firwi door cee teg ndawal maanaam li alxuraan tudd firwi ak ndawal jiitalul jamais ndawal door a indi firwi nañ dem ci suratul waaqia wa laxmi tayrin mimma yashtahun wa fakihatin mimma yataxayaru suñ borom bi muy nettali noosug waa aljana te noosug waa aljanna ku bëgg a wér fii ci àdduna moom ngay jéem a jël gis ngeen naar yi ni ñu koy copier li mu jàng ci alxuraan lépp ñu ngi koy jéem a indi ci àdduna muy jardin yu rafet yaag piscine nag parce que noosug aljanna mooy wérub fii soo bëggee wér fexee la copier aljana ci ni la ko yàlla jàngale rek nga am sa aljanna bopp fii ci ci ci àdduna yow bala ngaa dem fen wa laxmi tayrin mimma yashtahoon suñ borom nee na waa aljanna dañuy bokk na ca lañuy ñuy noose mooy yàpp njanaaw yàpp picc foofu it xam naa duñ fi sax jër ñuy gudd yàppu picc li ci scientifique yi wax ni mënee maye deret loolu day dugg ci prévention muy fagaru ci wàllu lekk saytu li ngay lekk wa tax mimma yataxayyaruun mu door caa teg nag ni bokk na ca la ñuy choisir dégg nga dégg nga li nga xam ne nii mooy Euh, euh, fir bi mimmaa yataxayaroon wa faakihatin mimmaa yataxayaroon damaa juutalaay dégg wa laxmi tayrin mimmaa yashtahoon dégg nga ngeen baal ma wa faakihatin mimmaa yataxayaroon wa laxmi tayrin mimmaa yashtahoon noonu la aaya ngeen baal ma maa ngi jiital fii don kon faakiha moo jiitu muy fir bi naka noonu ci suratu tuur wa amdadnaahum bi faakihatin wa laxmin mimmaa yashtahoon foofu borom bi bi muy tudd ndawal ak fir wi dafa jiital fir wi door indi ndawal dafa wax ni wa am dadnaahum bokk na ci waa aljanna liñ leen di jox comme teraanga mooy fir wi lañuy jiital dégg nga wala xam mi mimage tawoon door caa teg ndawal ca ñuy noose loolu alquran sax bàyyiwu ko ginnaaw mooy léegi science ñu ngi daw di woo nit ñi ni leen dee leen jiital fir wi te loolu tasagut sax nekkagul lu tas ñu bari xamaguñ ko te science saxal na ko mooy di jiital fir wi avant ngay lekk ndawal au lieu que ngay lekk ndawal ba pare di ci doog teg fir wi foofa sax indi na bu ñu ci indi ñoom ci seen gëstu yooyu ni dafay créer benn liquide boo xam ne koxul euh, lay doon ci sa biir te mën na doon genre posen boo xam mën na indi ay maladie yu sew sewaan ci sa biir te mooy lekk ndawal door caa teg li nga xam ne mooy fir wi yi yëpp day dugg ci wàllu prévention donc kon loolu bokk na ci lii wone ni alquran huwa shifa min kulli daa naa fii ñu bari doon xaaree Euh, waxtaan wi mooy aljanib al asrar yi muy côté mystique muy boo bindee lii daal di koy alquran ay orientation la dafa joxe ay orientation comme ni médecine joxe ay orientation ni la médecin bi naan defal lii defal lii bàyyi lii bàyyi lii loolu mooy alquran da nga koy comporté woo wér donte côté boobu am na ci dinañ ci ñëw muy côté mystique dinañ ci ñëw muy wàllu bind ak wàllu li nga xam ne mooy euh, jàng dara ndax sunna la dégg benn ngi noonu kon ci côté jël ay matuwaay ci wàllu lekk du ak tubaabe comme niñ koy wax ak njullite la ak lislaam la muy prévention al ayat al wiqaaya al mutaalliqa bi riyaada al badaniya wal aqliya médecine dañuy soññee ci wàllu prévention muy fagaru mu bokk ci wàllu faju muy li nga xam ni nii mooy li ñuy wax sport sport ci wàllu yaram ak wàllu xel bu ñëwee ci alquran alquran huwa alladi borom bi subhanahu wa taala dafa wax ne huwa alladi jaala lakum al arda zalulan famshu loolu mooy allaji di famshu fi manakibiha bokk na ci xeeti sport yi ñu wax ni moo gën te médecine saxal ko du sport bii ñoom Yékini Balla Gaye di def de sport bi gën mooy dox ñu bari jàpp nañ sport bi gën mooy dem di yenn ñu diis kooku kuy wut doole la mais pour wut wér rek dox moo gën ci sport loolu science saxal na ko bu ngeen demee tey ndakaaru wala yéen dëkk yi da ngeen gis ay association yi ancien ay ay retraite ay mag ñu retraité sol ay chaque chaque samedi wala dimanche ñu sol seeni blouse ak ay cap dox lu mat di kilomètres parce que xam nañ li ci nekk dañ leen koo digal muy mag ñi nga xam ne ñu ngi ragal a AVC wala ragal dara dal leen dox fépp muy Canada muy Chine muy Amérique ñëpp ñu ngi conseillé nit ñi ci ñuy dox ci ñuy dox xoolal alxuraan ni mu leen jiitoo ci wàllu fagar boobu borom bi nee na wallazi jaala lakum l-arda yàlla mooy ki leen defalal suuf zalulan mu tàggatu nangu lool suuf nangu waay waay fam suuf fi manakibiha dox leen ci ay wàllam dox leen ci ay wàllam su xoolal conseil médical bii la alxuraan di jox dox leen ci ay wàllam moom suuf wa kulu min soo doxee ba sonn nag nga ñëw xool lu baax nga lekk ko wërsëgu yàlla loolu mooy sport bi gën dox ba sonn ba sa ñaq siit sa articulation yi sonn nga ñëw toog dal soppalee wa kulu min rizqi yi ngeen lekk ci wërsëgu yàlla wa ilayhi nusuur waaye bàyyi leen xel nag ni fagaru teewut a dee teewut dee da ngeen di dellu ci yàlla ñu bàyyi xel ni li ñuy waxtaane moom teewut a dee dégg bu ñu demee tam ci xeeti arkaan yi alquran teg al arkan yépp loo ci jël boo jëlul bu ñu génnee jaanib al fiq yi muy wàllu jurisprudence bi muy ay atteeg yooyu noonu jël côté science gi ñuy waxtaane jaamu yàlla yépp fees prévention muy wàllu fagaru ci bañ a feebar muy julli sport kese la aj màkka rawatina wa iz bawwa'naa li Ibrahima makaanal bayti an laa tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya li taa'ifiina wal qaa'imiina wa rukkaa'i sujuud suñ borom nee na maa tàggatal Ibrahim environnement bi bër wër kaaba gi maa ko tàggatal ni ko bu leen ma bokkaale yàlla bu leen ma bokkaaleeg ak dara te na nga laabal sama néeg bi ñeel ñi koy tawaaf tawaaf xam ngeen ni spoor la juróom-ñaari yoon nga wër ko kaaba gi. am ci yoon yoo xam ni sax dañ lay dawloo da ngay def ñukk ñukk dangay ngay ñukk nga wër ko nga pare ñun la demal nga daw safa marwa safa ak marwa am na ci zone boo foo xam ne boo fa egsee da ngay ñukk muy batnul masil moom it dangay daw da ngay daw sport nga pare yàlla jëlee la fa yóbbu la fa sori fu ñuy wax mu naa ni leen def leen fa ñetti fan yoo xam ne saa bu ngeen xëyee dem leen sànni ay ay jamra di sànni ni di sànni ñetti jamra yoo xam da nga koy tegale di sànni nga jóge fa mun leen dem leen Arafat maanaam aj boo ko jëlee sport kese la wàllu zahir bi fee ci kaw sport la ba ni muy jeexe sport moo tax yàlla bëgg ci ku am kartan julli noonu koor gi moom waxi nopp bu fekkee waxtu wi may nañ ko dinañ ñëw ci nu mu nekk wàllu wér gi wér gu yaram ni mu ci joué ci biir loolu ci biir aj màkka su borom dem na bay soññ ki aj ni ko summa afidu min haythu afada an-nas donc fu nit ñi jëm jëm fa nga xam ni sport ensemble la fu nit ñi jëm jëm fa waaw boo nekkee aj màkka fu nit ñi jëm rek àndal ak ñoom buur demal buñ jëmee munaa jëmal munaa buñ jëmee arafat jëmal arafat buñ demee pour dégg nga tawaaful xudum defal àndal ak ñoom safa marwa defal fu nit ñi jëm jëm fa pour mu encourager la ci ci li ngay def yii yëpp day dugg ci ar riyaada al badani inna safa wal marwata min sha'airillah safa ak marwa suñu borom nee na ci symbole yàlla yi la bokk fa man hajjal bayt aw i'tamara fala junaa alayhi an fa bihima ku aj màkk wala nga umra nee na amul bàkkaar ci nga tawaaf leen amul bàkkaar boobu farata waaye li tax mu ne amul bàkkaar day bañ comme lu jiitu lislaam dañ ko daan def dañ daan daw safa ak marwa lislaam ñëw mu bañ jullit ñi def seen bopp ni dañ ciy roy ñeneen muy doon bàkkaar moo xamal leen amul bàkkaar def leen ko garaawut ni ko ñi ñi leen jiitu doon defee defee leen ko noonu ñu rek fala junaa alay an yatawafa bihima ñu daw safa ak marwa wa man tatawaa xool nga indi na ak coobarew bi mu indee farata bi mu indi coobarew ni ku jékki saay sax jékki saay rek jóg dem daw safa ak marwa dégg nga man tatawaa xayran fa inna la shakirun alim nga xam ne yàlla mi ngi lay soññ toujours ci sport ci tàggat yaram bu gi ñuy reye tàggat sam xel philosophie mag yi ñu ñuy jàngal dañ daan bëgg fu wéet di dem ci àll bi di wut ay jardin yu bari ay garab di fa toog pour tàggat seen xel pour réfléchir alladina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi alsamawati wal ard rabbana ma xalaqta haza batilan subhanaka faqina azaba annar lii tàggat xel dëgg la mooy nature bi ñoom nature bi la ñuy wax ñu gëm évolution muy nature bi daa jekk ci saay créer boppam mais suñ boroom dalay joxoon ci nature boobu nga xalaat ci pour xamee am amee ci kàttaram ñaar nga ci amee mooy sam xel day ubbeeku sam xel day ñor ba pare suñ boroom may la ay darajaat jigéen la boppam waaye bind la ay tuyaaba muy nga tàggate ci sam xel noonu lu lu baree bari la afala yanzuruna ilal ibili kay fa xat suñu borom mbindeefam yi mi ngi bëgg ñu ko ci xool pour tàggat sa xel wa ila samaai kay fa rufiat wa ila jibaali kay fa nusibat wa ila ardi kay fa sutaat lii lépp day dugg ci nature bi nature bi scientifique yi di wax nit da cee war di soññ sonn leen ci nature bi di ko xool di wéet ci nature bi di xalaat nature bi di xool création wu nature bi suñ borom moo ko njëkk a joxoñ mbooleem lu ñuy wax tey te xam-xam layal ko ginnaaw buñ sukkandikoo ci ay jumtukaay ba ko alquran di wax jumtukaay bu sukkandiku amut kon li muy tegtale mooy ki ko wax du yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxul ma yantiqu in huwa illa wahyun yuha sun boroom ko wax lool su ko defee nag ñu ñëw ci e, bi nga xam ni mooy xismu staani muy wàll gu mujj gi waxtu bi fi mu toll dégg nga dañuy tëb lu baree bari ci wàll googu muy wàll gu njëkk gi muy wàllu prévention defe naa indi naa yépp muy yi alquran wax yépp yi boroom xam-xam yi teg yëpp te alxuraan jiitu leen ci ñu déggee ci ni li njëkk ci faju mooy fagaru fagaru boobu étape yooyu ma tudd ñett ñett yooyu la ko borom xam-xam yi tegal alquran noppi woon na ci bu yàgg kon alquran téere bu ñuy comporté woo la waaye du téere boo xam ne dañ koy jàng nii rek rek déedéet jàng alquran mokkal ko ñun ñépp xam nañ ni du farata jàng kaamil bi wàcce ko du farata dàquma ko nag lu baax la wutukaayu tuyaab mais daa am lu ko gën xam naa tëb nañ lu baree bari ci wàllu sport boobu ci lu bari di suñ borom wax ci ñi nga xam ni ñooy aj màkka pour njëkkanteeg waxtu wi bu nu ñëwee ci alqismu thani muy ñaareelu xaaj bi dañuy ñëw nag ci li nga xam ni mooy al ilaajul mubashir muy faju ci alquran directement directement sans ay recommandation wala comportement yii ma doon wax lu ci bari comportement la yoo xam ne danga koy comporté woo suñ borom danaan la defal li bàyyi lii nga def ko nga nga bàyyi ko bu ko defee wàll gi day jël ñaari xaaj day jël ñaari xaaj muy côté mystique bi nga xam ne ñu bari xëy na foofu lañ doon fooge ni fa la waxtaan wi jëm muy côté mystique bi daf koy jëlaale waaye day jëlaale encore ay orientation orientation yoo xam bu ko nit ki jëfee jëfe su feebaree mën naa mën naa yàlla mën na koo defal saafara Euh, ci kartanam su ko defee bu bu bu njëkk bi muy wàllu mystique bi moom day day dugg ci côté am njàng ak bind jàng ay aayaat tifli ko fi barab walla bind ay aayaat euh, takk ko wala naan ko donte takk gi euh, am na ci ci lislaam ay kuréel yoo xam ni dañ ko bidaal waaye loolu dinañ ci boros rek ci liñ ci mën a indi dégg bu ko defee ñaareel bi muy wàllu orientation yi day dugg ci euh, maanaam orientation yi boo ko toppee lim lay indile mën nañoo njëkkee ci loolu euh, ay xisas yu alquran nettali muy xisab sababu nuzul falaq wan naas kooku day dugg ci côté mystique bi waxuma nag mystique satanique ndax mystique dafa am ñaar dafa am mystique divine muy mystique boo xam ni ci borom bi maanaam dafa nuuraani la lu set lu sell la lu set lu parce que mystique suñ ko waxee mooy lu nit di jëfandikoo mu def jeexital te gisul jeexital bi kenn gisu ko waa du looy jël di ko naan dégg nga looy wax la wala nga bind ay araf rek mu def réaction bi nga soxla ci sa biir dafa am nag bu saytaane te bu dee côté saytaane am nañ ay jatt yu ñuy jatt ak ay wax yu ñuy wax yoo xam ni lislaam gërëmu ko ba man cee def dara ba man cee def dara côté bi may wax mooy côté bu set bu sell bi yonent bi sallallahu alayhi wa dañ koo dañ ko njibar biñ ko njibaree ku ñuy wax lu Lubay dubnul Asam nekk benn juif bu mag moom lañu ñu yaakaaroon ni njibar gin bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi war na koo man bi ñëwee ñu fay ko alal ju bari mu njibaru yonent bi sallallahu alayhi ci lan la ko njibare ci peñe bu mu doon peñe woo def na ay pexe ba naafiq yi dugg kër yonent bi fexe ba am dammiitu peñe yonent bi sallallahu alayhi ak ak lenn ci kawaram indi ko ko mu njibar ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu def ko ci ab teen bu xóot jël aw xeer teg ko ca yonent bi tëdd ci lu mat ñetti fan yoo xam ni yaramam dafa fasu yaramam dafa fasu falaxeeg naa si wàcc fecc pas-pas yi njibar yooyu loolu nu mu demee ñu ñëpp nañ dem xool sababu nuzul falax wan naas suñ borom dafa yebal ñaari malaayika ñu ñëw tiim yonent bi ci mel ni kuy nelaw te xam ngeen ni nelaw yonent gént yonent du gént réyalité la géntug yonent yàlla ibrahima ca rendik ismaïla moo koy dëggal ak yusuf ak ñeneen ak ñeneen yonent bi gis ñaari malaaka yi kenn ki ñëw posé morom bi question ni ko kii lu ko dal mu ni dañ koo njibar dañ koo njibar mu laajaat ko ni ko ku ko njibar mu ni ko lu bay dumnul ansam moo ko njibar mu ni ko ci lan la ko njibare mu ni ko ci kawaru kawaru boppam ak peñe bi mu doon peñewoo ci ci la ko njibar mu ni ko njibar gi fuñ ko def mu ni ko ñu ngi ko def ci benn teen ci ci Medinatu war ñu ngi ko fa def tudd turu teen bi ay fàcce fàtte turu teen dégg nga yonent bi ni xifeet yeew daal woo ci saxaaba yi Aboubacar Seydina Ali cala ni leen dem leen ci teen sàngam ngeen gasto bu ngeen duggee ci biir teen bi dingeen fa gis ñoom ñu ñëw dugg ci teen bi fekk fa ëmb bu ñu ëmb def ko fukki fas ak benn dégg fukki fas ak benn ci biir loolu avant ñuy dem malaaka yooyu ci lañ ko jàngale kon yi la nga ca parce que mooy indi waxyu ci lañ ko jàngale falaqi ak naa naasi muy dégg qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma xalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab wa min sharri naffaathati fil 'uqad wa min sharri hasidin iza hasad muy juróom juróomi aaya qul a'uuzu bi rabbi nnaas maliki nnaas ilaahi nnaas min sharri l-waswaasi l-xannaas allazi yuwaswisu fi suduuri nnaas min al-jinnati wan boo ko boolee muy fukki aaya ak benn tombeek fukki pas-pas yi ñu fas ca njibar ga njibare ko yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mu fecc pas-pas yépp yonent bi delluwaat ci kon falaxi ak naasi dafay saafara ak njibar loolu mooy sababu nuzuulam te yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam moom la ñuy roy ci lépp falaxi ak naasi day saafara ak njibar suuratu fatiha day faj xadiisu uh, uh, uh, abi saïd alxudari bu siiw boobu mu ànd ak ay saxaaba yonent bi yónni leen ci benn tukki ñu romb ab dëkk ni waa dëkk bi ndax du ngeen ñu may fu ñu dalloo waa dëkk bi génne leen ni leen déedéet comme nañ defoon Moussa Xadir rekk dégg nga bi ñu demee ca catul Euh, dëkk ba toog fa yàlla nattu kilifa dëkk bi jiit màtt ko jiit wu soxor wu doy waar màtt ko ñu jéem ay pexe jéem jéem lañ daan def mu daan faj jiit dara réagiru deful benn effet xam naa booba leeruk muhammadiya gi ne ci wet gi <laughs> lam dale woon jinne wa inna kunna naqudu minha maqaida lis sam'i daa nañ ko def waaye fa man yastami al aan parce que léegi ab yonent daa ñëw ku ñu wax muhammad yajid lahu shabra léegi saxaaba yee fi nekk ci dëkk bi xëy na moo tax lañ daan def muy faj jiit gi def nañ ko mënuñ mën mënta faj ñu ñëw ci saxaaba yooyu ni leen ndax ci yéen amul ku mën a e, lugg jiit abu saïd lañ wax ni moo jóg donte moom ci nettali bi dafa dàq boppam mais am na ñeneen ci yeneen i nettali yoo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ni moom ci boppam la waaye ala kulli haal kenn ci ñoom jóg na ni ko mën naa saxaaba yi xoolante mu ñëw jàng faatiha ci moom tifli ko kenn yëgul ñu jox ko fanweeri xar fanweeri gàtt lañ ko jox mu womat ànd ak moom ñëw ci saxaaba yi lii nag mu ni mocc naa ko ñu xoolante loo ko mocce mu ni faatiha coow jóg lii lañ ma ca jox xar yi ñii ni danañ ko jëfandikoo ñii ni duñ ko jëfandikoo mu ni nañ bàyyi ba àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ànd continuer seen voyage ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi nettali ko histoire bi ni mu demee yonent bi ree ni ko ku la wax fatiha day mocc kan moo la wax fatiha day mocc donc laaj boobu du laajub ki laajub maam fan la war a xamee secret boobu daan ni ko jox leen ma sama wàll kon saxal na ni faatiha day mocc waaye daganalal na ko liñ ko ca jox ni ko jox leen ma sama wàll ca ci ci gàtt yi leen jox te lii lu wér la mi ngi ci kutub ahadis yi ñépp nettali nañ ko donc loolu bokk na sayyidatuna Xadija nee na yonent bi sallallahu alayhi dugg na ci kër gi fekk benn soxna di ma mocc yonent bi ni tëll gis soxna si di ma mocc mu ni ko aalijiha bi kitaabillah mocc ko ci téereb yàlla bi mocc ko ci téere téereb yàlla bi maanaam faje ko ci alquranul karim naka noonu ibnul qayim aljawzi téereem bu siw boobu ñu tudde adda wa dawa boo ca demee nettali na ni moom dem na màkkatal mukarram ci jamonoy ak feebar attaqué ko fa gisul benn médecin nee na mu jël faatiha di ko di ko jàng bis bu mu xëyee ba feebar bi dem te gisul benn médecin bu ko tiim feebar bu metti attaqué ko faatixa ci la faje boppam moom Ibnul Xayim buñ ñëwee ci suñu jàmbaar ji Cheikh Mat Bamba Xadimu Rasul moom moom daa défier ñëpp ni leen ni ñëpp awma benn médecin bu dul alquran awma benn médecin bu dul alquran yaa kitaabal karimi anta habibi wa wa qablu kunta tabibi yow téere bi yàlla bi yaay sama xarit di sama soppe te sax lu jiitu loolu nekkoon nga di sama médecin bu may xaj léegi nag ci biir loolu ndax alquran saafara la ak saafara loolu waxoon nañ ko ci ab jullit moom du ko weddi ay lay lañuy indi waaye kan lay saafara ak naka lañ ci saafara loolu moo moo jara laaj moom la ñuy tëje waxtaanu xam na tëb nañ lu baree bari sax mbir yu am solo borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni yaa ayuha nnaasu qad jaatkum mawidatum min rabbikum wa shifa alquran shifa la shifa la nga gëm ko shifa la nga ñàkk goo gëm shifa la mooy saafara euh, shifa li ko wutaleeg daa muy médicament mooy médicament lañ ca yaakaar mooy shifa mën na koo am mën na koo bañ a médicament bi ngay jël pour faju mën na am shifa mën na koo bañam waaye ala kulli xaal yow médicament bi ñoru la doom bi la médecin bi jox nga koy lekk ñoru la li la ñor mooy li ci biir doom bi ndax dina def FM du ko def donc loolu moo tàqale shifa ak li nga xam mooy dawa dawa mooy li ngay jël li nga jël moo xam aw xob la moo xam yi tubaab bi defar la wala loolu mooy dawa mais shifa nag mooy lay nekk ca biir mën na caa nekk mën na caa bañ a nekk shifa googu nag sun borom moo ni alquran shifa la hamdan li munzili dana waddaayi wa munzili shifaay waddawaayi shifa ak dawaa bokkul sun borom ñaar yépp moo ko wàcce donc moo tàggat nit mu mën a créer ay dawaa souvent mu dal ca am ca shifa yenn saa yi du ca dal du am dara moo tax ngay jég saay ñoom médecin yi wala science ci boppam médicament yi ñuy génne ñu toog am at ramassé waat yëpp ci pharmacie ni médicament bi ñu génne woon ñu ko doon utiliser juróomi at yi yëpp ndekete nangam da cee nekk baaxul ci nangam dem nañ ba gis ni ñu baaxul ci nangam ñu gaaw ramassé waat ko ci pharmacie yëpp. parce que dañ da ngay tànn rek dawaa ngay defar mën naa am chifa man na mën naa am sax inconvénient maanaam mën naa def chifa ba pare lor loraale loraa ngay am ca mooy li nga xam ni mooy nit ki soxla borom bi subhaanahu wa wax ni yéen nit ñi xat jaatkum mawida ay avertissement dikke na leen muy ay waaraate min rabbikum yu bàyyi ko ci seen borom wa shifa ak saafara lima fi sudur loolu yaatu la saafara goo xam day saafara li ci biir dënn yi lu yaatu la scientifiquement dënn moom lii responsable wéru yaramu doomu aadama ca la nekk ci côté zahir waxuma côté ngëm ak yooyu kooku mooy li gën a xóot mooy li ko tax a jóg muy saafara li tasawuf di xeex muy feebari bàkkan ye dégg nga bëgg dara jaag njistal ak dégg nga bëgg ku la gis ak et cetera feebar yooyu li maa fi sudur waaye même boo ko indee zahiri yan li maa fi sudur mooy xol moom moo nekk ci dënn doomu aadama te xol mooy responsable feebar yi su wéree lépp wér su wéree de lépp wéree di yonent bi sallallahu alayhi wax na ko inna fil jasadi mudga isa saluhat saluha al jasad kullu wa isa fasadat jasadu kullu muy ala wahiyal qalb naka noonu suñ demee ci ñeenti ñeenti shifa la borom bi tudd ci alquranul karim ñett yépp dani alquran mooy shifa benn rek la ci génne ni lem shifa la waaye ñett yëpp jëmmi alquran ji la wax ni mooy shifa jëmmi alquran ji loolu li muy tegtale mooy bu ñu dajalee liy saafara lépp bu ñu leen dajalee quatre-vingt quelque pour cent yëpp alquran leen man ci sifa sifa saafara lenn la kese mooy li nga xam nit mën na koo jël am ca lam bëgg mbaa mu bañ ko ca am mais quatre-vingt et quelque pour cent yëpp day saafara borom bi subhanahu wa taala wa awxaa rabbuka ila nahli an ittaxisi min aljibaali buyutan wa min alshajari wa mimma yaarishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zululay yaxruju min butuniha sharabu muxtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas inna fi dalika la ayatan li xawmi yatafakkarun lem sun borom bi muy jàngale ni saafara gis nga daf ñoo jàngalaale benn li ñuy wax mélanger ni ñuy mélanger médicament ni maa wax yamb maa ko inspiré ni ko wëral nature bi garaboo garab jël fa meññeef nga mélangé ko jaxase ko lan cay génn nekk jus bu neex boo xam ne ay couleur dafa wuute su ko defee nit ñi di ci saafaroo lem saafara la te lu ko gën a gaaw ci saafara amut waaye alquranul karim la wa nunazilu min alqurani maa huwa shifaun wa rahmatul lil muminin ñoo wàcce ci alquran loo xam ni saafara la waaye nekk yërmande ci jullit ñi yëkk yërmande ci jullit ñi borom bi subhaanahu wa wax ni qul huwa lillazina amanu hudan wa shifa nee leen alquran ji ay orientation la ñeen ñi gëm waaye shifa la léegi nag shifa moom ba ci médecine moderne bi mënta saafara kudul ku ko gëm ñu bàyyi xel lool moo tax suñ boroom loolu bàyyi na ko xel alquran ku ko gëmut mënulaa saafara science saxal na ni médecin bi lay faj bu sa xel dalul ci moom mënu faj au contraire boo moytul mu yokk la ay jàngoro médecin bi lay faj nga xool ko sa xel dalul di rab rabi parce que li nga njëkk a indi mooy sa système immunitaire bi nga xam mooy responsable lu xeex ak virus yi ak jàngoro yi da dal daluk mën a xeex da dul dal daluk mën a xeex ak jàngoro yi su ko defee soo tiitee ragal am problème du mën a def dara moo tax borom bi bi muy wax wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun daf koo tegal charte lil muminin ñi ci am confiance ñi ci am confiance alquran ku ci am confiance mu faj la ñépp ko saxal lii moom kenn werante wu ci muy salafiste yeeg wahabiyun yeeg dégg nga boo demee ibnu taymiya saxal na ko ibnu qayyim al jawzi ñoom ñëpp ca salaf wax naa euh, xisab yonent bi wax naa xisab saxaaba yi wax na wax naa xisab taabi'un yi wax naa ba ci Cheikh Mat Bamba Xadimu Rasul lim ci wax du jeex Sëñ Tuubaa nee na huwa shifa min kulli daa waaye da koo tegal charte saafara la ci bépp jàngoro moom alxuraan waaye liman alayhi tamada ci ki ci sukkandiku ki ci sukkandiku sukkandiku nag mooy lan ndax ñun àgg nañ ci alquran fi àgg prestamol bi ñu médecin bi di jox ndax àgg na nga xam ne bu sa bopp di metti boo koy jël doo xalaat dara da xalaat ni boo koy naan muy muy wér maanaam ngëm-ngëm boobu est-ce àgg nañ ko ci alxuraan maanaam médecin yi liñ lay jox ni nga ci amee xel mu dal ni lii day faj nangam nga gëm ko ba gëm gi àgg na foo xam ne yow xalaatatoo ay conséquences li ngay xalaat mooy boo koy naan fi fi kanam rek bopp bi day wér loolu ngay xalaat est-ce que àgg nañ foofu ci alquran est-ce que am nañ confiance boobu ci alquran ni bu ñu dara méttee bu ñuy jàng fatiha rek muy wér sans doute sans doute lil muminin li man alayhi tamada wa man abahu tulida sa fi ñuy daanelee mooy sëñ Tuubaa mu wax ni allahu xayru man shafa wa man hada wa kashafa wa minhu jaani shifa min kulli daa muqadar te lii dong la médecin di def lii dong la médecin di def allahu xayru man shafa muy hëda muy jox la ay orientation wala mu jox la ay médicament wala mu diagnostiqué la wax la sa feebar muy defal la kas kasful la maladie bi la bi la bi la dal sëñ Tuubaa nee na ñett yi yàlla moo ko dàq ñëpp allahu xayru man shafa moo gën kuy joxe médicament bu am saafara waman hada moo gën ci kuy joxe ay orientation yoo xam boo ca jaaree wér wa kasafa moo gën ci kuy wuññi ay feebar muy li ñuy wax consultation wa minhu jaani shifa te ci moom la ma dikkee saafara muy alquranul karim min kulli daa muqaddari kon mbokk yi ci tënk daal li ñu bëgg a wax mooy alquran saafara la donc falaxeeg naa si googu ñu wax ku dara dal rawatina ku ñu njibar bind ko limub kaafi kaafi ci tur yàlla yi la bokk muy aji défendre ji ki nga xam mooy fekk soo ko bindee limub kaafi falaxi cent onze naasi cent onze nga sangoo ko njibar ga day deñ amul sax ma dem te ñëw day deñ boo ca mënee boole ay cuuraay yi cuuraay yi nga xam ni sunna soxla na ko nga def dégg day deñ amul sax wax ayatu shifa yi dem leen ngeen tàppe mu ngi ci google bi ayatu shifa day faj faatiha day faj bopp bu metti day faj lu baree bari daf koy faj da koy gëm di ko def di ko pratiquer su ko defee kon wàll googu mooy wàll gi nga xam dañ ko doon tëjee duñ jàpp ne alxuraan bu ñu waxee sifa la rek nga foog ni donc bind takk la wala bind naan mais dafa amaale ay orientation ay comportement yoo xam dañ ciy tege bu ko defee ngaw daal di mën a am ak ak wér gu sell yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp suñ borom may ñu wér gi yaram may ko képp koo xam ne nii dafa tawat te suñ borom may ñu ñu topp alquran pour mën a am dëgg-dëgg wér wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu macha allah al oustaz alhaaji Mouhamadul Amin Ndiaye xaadimul muslimin thème bi am na solo lool Euh, jariñu nañ ci tamit lu bëree bëri ci loo xam ni doon nañ ko xaar ci yow ñoo ngi lay ñaanal yàlla suñ borom subhanahu wa taala mu dolli laa tawféexal yàlla yokk xam-xam bi te yàggal la ci suñu kanam nga yàgg di ñu jëriñ rawatina ci li nga xam ni andi nga ko tey ci thème bi macha allah xam naa ne dina laaj yeneen jotaay wax dëgg yàlla parce que li nga ci bëggoon a jàllale lépp am naa des na lu bare bari waaye waxtu wi moo ñu xaw a tënk su ko defee kon dañuy jox euh, Serigne Mohamed Touré mu def tuuti taaliq ci li Oustaz Mohamed Amin nekkoon Oustaz bismillah auzu bika min hamashati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun wasalaatu wasalaamu ala ashrafil wa nabiyina muhammadin sallallahu taala alayhi wa mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen nuyu di leen siyaara ci weeru màgg wi di seerul mubaarak di ñaan yàlla suñu boroom ma ñu kàtt nu woor ko te mu nangul ñu ko te bu ko nangu it mu ful ko bu fulit yàlla ko yàlla denc fu yàq yéegul di nuyu mboolem waa Azhar rawatina Al Ansaaru diin jël nuyoo bi di ko teg ci loxo la al ustaas mudir Cheikh Abdul Xadir Mbay mu jotal ni ko ñi ñi seqal liggéey bi yépp waaye di nuyu di siyaare al ustaas docteur Mahamad ci thème bu am solo bi nga xam ni mi ngi ko tibbee ci alxuraan wone ni alxuraan manqué wu dara ima benn ñu xam ko wala ñàkk ko xam aspect yim développé nag Euh, bëri na ci yoo xam ni yow mi ko jàngul sax dangay ngay déggee ci ni Seydina Omar doon wax ne alquran xumaalul awju daa porté ay fikir yu baree bari te ba mu ko déggee man maa ngi doon espérer euh, jaani bi asraar bi mu mujj a wax ndax alxuraan dafa yaatu mën a saafara waaye nag scientifique yi léeg-léeg it ñu dikkiru la xam ni day fekk alxuraan waxoon na ko amaana suñu dégg ci alxuraan moo ca des kon nag mao doon yi mel ni day am solo ndax li eh, ko waxee ci lu mujj rek suñ tubaab bi mu wax ni wasifa min kulli daa liman alayhi tamada kon ki alxuraan di di saafaral ay mbiram mooy ki ko gëm te sukkandiku ci caas bu yépp nag wa man abaawa turida nag sansrete wan a demi kon loolu buñ ko déggee kon siñ bi dañ day jëru sax ñuy gën a waaye buñ déggoon bayit boobu rek wa rentré a bi mooy kon li yàlla euh, def yépp buñ ko xamoon mën naam am duñ am jafe-jafe wax na ci aspect ni ki ni muy war a fegoo ba maladie yi du ko mën a attaqué après bu yàlla dogalee feebar ñëw nu muy def ba saafaraw indi na ay yu bare bari yoo xam ne daanaka contexte bi maye na ñu nekkati déggoon nañ ci leen waaye gën nañ ci amaat ak dégg loolu nag li koy waral li wax rek mooy faaw nit nit ki di boole ci njàngam alxuraanam science alxuraan ci bari ay bari léeg-léeg boo ko dee jàng di ko nafar nii da ngay gis ni suñu borom dafay soññee ci nit ki di def méditation di xalaat waaw dee leen xalaat di dee leen xalaat dee leen lépp lépp na day bëgg li ulil absar li ulil albaab li xam yaqul xam yatafakkaruun yooyu yëpp day bëgg yàlla lépp looy jàng nga di si bàyyi xel ni ay la yoon alxuraan kat ndekete lii la ma soññ orientation yi joxe nag bëri na loo xam ne daanaka buñ ko toppoon rek mën naa am duñ duñ aajo boo feebar bay bay faju kon bu dee ci wàllu médecine ci loolu bu dee ci wàllu li mujjee mooy asraar loolu mag ñi fi nekkoon daawuñ am ay ay ay médecins yu leen tiimu waaw ba yaa waaw <laughs> léegi nag daa soppeeku waaw jamono bu njëkk ñu bu man daan naa feebar ci daara ji ba ba ba wér te du ma dem ci hôpital wallaay na ci mais maladie yu chronique nag ay choléra yooyu daawoon dégg déggatu leen ay choléra ak ay ay ay ay wagaak xeet mel noonu daa daanañu daal ban ban ban wér te wuñ te daawuñ dem ndax suñ mu daan bind wa in rek boole ko faatiha lu mu mën fa faj amut ñun nag léeg-léeg dañuy dañ koy xam waaye nag est-ce que li mu wax dëgg la maanaam est-ce que confiance bi gëm gi dëgg dëgg dëgg dëgg mi ngi ci doyloo ko léegi mën naa laaj. kon su ko defee dañuy sant oustaz bu baax ci thème bi mu ñu indiloon tey. nga xam ni loolu mooy programme bi nga xam ni moom la daayira ansaaru diin islami tanzim ànd ci ak mudir Abdou Khader Mbaye ak mboolem jàngalekat yi nekk ci école bi yëpp ñu fas yéene di ko taxawe nii rek ci alxamis bu ci ne ci biir weeru koor bi incha allah di jaajëfal suñu euh, muhadar bi nga xam ni mooy Mouhamadul Amin Ndiaye nekkoon ci thème am solo boobu. macha allah alhamdulilah kon loolu moo nekkoon euh, jotaayu tey bi ñu àndoon ceeg oustaz Mouhamadul Amin Ndiaye ci alquranul karim wa shifa min kulli daa'in macha allah di jaajëfal ñu fi teew ñëpp rawatina ku mel ni oustaz Modou Ngom ak oustaz Khadim Tine oustaz Souleymane Chamel ñu ngi leen di jaajëfal oustaz Salih Tine daayira Serigne Soin bu Mbàkke ñoom itam teew nañ fi macha allah ak parent des élèves yëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax suñu demee ba nga xam tamit mën nañoo am émission bi di ko seetaan tamit ci euh, ci seen i lu ci mel ni Faaida TV bi nga xam ni Makhtar njaay teew na fi nga xam ni moom moo ko yoree macha allah su ngeen defee Faaida TV rek di ngeen ko mën a seetaan en direct ak tamitam rajo Ngoundiane FM 80 ak njole fay macha allah ak site bi teew nañ fi yooyu yëpp pour jàllale programme bi ak li nga xam ne mooy matérielu daayira ansaaru diin bi ci son bi bañ mañ koo déglu bu baax a baax amul benn faute ñi ngi jaajëfal ñëpp di leen jox dig daje xam naa ne incha allah alxamis bii di ñëw ñu war ci ànd ak oustaz xaadimu rasul loo mu war ñoo ñëwal ci alwasailul ilaamiya ci ijaabiyaat yi ak salbiyaat yi incha allah kon loolu mooy programme bi nga xam ni moom la euh, daayira ansaaru diir bi tëral ñu leen di jox dig daje incha allah kon loolu moo nekkoon jotaay bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu